salaamaaleykum mbokk auditeur auditrice su Rewmi FM daleen nag jàmm seen émission sans filtre di jotaay ndaw ñi fii ci réew mi FM mercredi bu jot 15 jàpp 6 heures lay am tey ñu dalal Moustapha Cissé moom bëri na ci li nga xam ne da ci yëngu moo di fondateur ak directeur cabinet Save Education euh, moo nekk itam promoteur concours inter école débattant initiateur euh, programme réflexion di jeunes euh, nekk na itam promoteur du camp de vacances Sénégal Tour Moustapha Cissé ñu bàyyi la nga nuyoon ceeg mbokk auditeur Rewmi FM. waaw euh, maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di lay nuyu yow tamit di la sant di la remercier aussi si invitation bu muy invité nii et également di nuyoo ñëpp nga xam ne ñu ngi déglu si Rewmi FM 97 point mm-hmm. ci li nga yëngu bari de <laughs> ah, est desul sax. oui des uh-huh. des na ah, oui c'est vrai des na bon mais xam nga rek euh, très curieux dans la vie et surtout on prend des initiatives loolu moo gën a am solo mm-hmm. mais aussi dañu bëgg a participer si développement suñu dëkk surtout mm-hmm. Mm-hmm. am na solo tey ñu fas yéene waxtaane li nga xam ne moo di développement personnel euh, surtout ci ndaw ñi tey bu ñu woon développement personnel gis nañ ñu bëri ci école supérieure lañ koy jàng maanaam nga am bac dem université am nañu jaar université sax duñ ko jàng mais yenn école privée yi ngay gën a gis ñu jàngale li nga xam ne moo di développement personnel yow noo gisee euh, matière boobu nga xam ne ñu ngi koy jàngale ci daara yi kaw yi bon euh, développement personnel comme yow lu nga ko waxee rek mooy même constat la si man collège mais euh, boo xoolee euh, toujours c'est à partir de l'université euh, le le xale yi di commencer xam lu ñu bëgg a def ak tamit fu ñu bëgg a teg seen tànk ak nu ñu ko bëggee def aussi c'est très important maintenant boo xoolee système éducatif bi surtout jëlul en charge jëlul en charge fan boobu nga xam ne c'est très important parce que xale boo nekkee xale normalement bu ñu la tegee ci yoon déjà yow di nga xam fu nga jëm mais aussi di nga xam na nga koy defee aussi pour nga egg fu nga jëm donc c'est très important maintenant lu si kii rek mooy maanaam euh, boo xoolee tey fii Sénégal euh, dañuy ne développement personnel développement personnel tellement aujourd'hui il y a tellement de coach mm-hmm. en développement personnel mm-hmm. que ça da ngay da ngay laajte même est-ce que ñi ñi nga xam ne ay coach lañu est-ce que ñoom xam nañu la valeur di développement personnel mm-hmm. léegi boo xoolee euh, tamit loolu moom ma gën a euh, intéressé parce que école boo xoolee école bi école bi du jël fànn boobu parce que école boo demee instruction lañ lay def mm-hmm. mais ah, parce que l'école il y instruction il y a apprentissage il y a formation il y a insertion whatever il y a beaucoup de choses également mais boo xoolee euh, école ñoom instruction rek la ñuy def mm-hmm. te loolu du permettre xale bi en réalité mu xam lu muy jàng nii valeur boobu bu mu am mais aussi lan la ko mun a jëriñoo bon man. Euh, man je suis totalement différent avec euh, ces gens parce que bon la man depuis lors euh, je suis dans les organisations depuis dans les associations je suis dans les programmes des projets et ainsi de suite mais pour te dire que man le mot développement personnel vraiment ay dem euh, nit di lay def ay formation man mosuma ko def man mosuma ko def c'est vrai que depuis tout petit d'abord dafa commencé si suñu village mooy suñu si école primaire donc déjà à bas mm-hmm. en classe xam nga li nga bëgg. voilà en classe de CI. voilà en classe de CI j'ai été responsable de classe. voilà donc école bi <laughs> classe bi ñoo ma désigné nekk responsable de classe et en même temps dama doon yëndu ay cahier dama doon yëndu cahier yi cahier cahier si suñu cahier yi parce que suñu monsieur à chaque fois ma lay interpellé à chaque fois donc daf ma doon mettre euh, genre yooyu déjà nekk naa déjà leader par exemple leader moo koo xam ne moom moo mënee ah point A jusqu'au point B mooy guider xa. Euh, moromam yi moom mooy mëne moom mooy waa tey cours amul tey cours am na tey lii la def tey lii la war a def a def surtout euh, damay veew aussi organisation école bi kii classe bi mm-hmm. parce que boo damay ñëw ma ne euh, groupe A te yenee bale euh, groupe B suba yenee bale xam nga donc loolu yëpp musée bi moom a koy santaane quoi mais cest à ay affaires yoo xam ne da koy def sans se rendre compte que la valeur bu muy am après si yow mm-hmm. parce que c'est par la suite mooy CI Euh, enseignant bu ma yoroon sey après moom dafa bàyyi après keneen ñëw CP CP encore c' est la même chose aussi mm. donc on m'a kooku tamit bàyyi après CE keneen ñëw encore ku tudd Moussa Moussa Moustapha Badji mm-hmm. alors que sama tondoor la sama xarit la mais aussi sama papa la en quelque sorte parce que moom moo dugal si lu bëri. kon yow on peut dire que yow euh, dès le foofu la lépp commencé. oui effectivement effectivement dès le bas parce que foofu la comme te rendre compte que la valeur bu ngay def en fait. Mhm. voilà donc Moussa Badji bu mu ñëwee dafa ma dugal fii ay théâtre ay troupe théâtrale ay ay ay équipe génie en herbe aussi euh, gouvernement scolaire euh, ñun ñu ne ko Fosco. Mhm. voilà <laughs> voilà sommet de base aussi xam nga ma ne comme président bi également. Mhm. et noo laa demee ba SEM2. SEM2 SEM1 SEM2 ma nekk président gouvernement scolaire bu bu suñu école suñu dëkk et bu ma demee ba sixième si laa commencé dugg si ay club d'anglais ok club d'anglais et ay ay ay yeneen club ma nekkoon euh, chargé de communication déjà club d'anglais bu may ñëw et deuxième année ma ne nekk président <laughs> club anglais bi. Mhm. donc si loolu laa nekkoon si yooyu tamit laa doo yëngu. kon bu ma la déggee baax développement personnel euh, war nañ ko commencer euh, ci classe première yi wala lycée. effectivement effectivement ba bàyyi ba dem université. effectivement euh, boo xoolee nit yi bokkuñu. Mhm. ah nit yi bokkuñu am na ñoo xam ne dañu juddoo. Mhm. dañu juddoo rek am ay nit yoo xam ne ñoo ñoo nekk seen kanam di leen guider. am ñoo xam ne. ñoom bugg nañu ko. mais xamuñu ko. xamuñu ko mësuñu ko dégg. voilà am na ñoo xam ne ñooñu dañu juddoo rek nekk ci sa voie bi comme sama zaar yi xam nga donc loolu yëpp mais à chaque fois à chaque fois ah réunion bu amee chaque mercredi voilà chaque mercredi par exemple par exemple ñun ñun euh, bu ñu nekkee xale mercredi ak samedi mosuñu am euh, euh, day day off maanaam crédit boo xam ne toujours si on est occupé <laughs> toujours mercredi ak samedi man mercredi ak samedi moom ma gënul jour yëpp parce que si ngay demee ah, réunion réunion si ngay demee autour xam nga di table ngeen ngeen di toog ak seen xarit yi ah, mooy kii activité extra euh, extra scolaire yi. Mm-hmm. xam nga donc loolu da lay former un ah, téléphone mais sans pourtant nga xam ko parce que à chaque fois booy wax xam nga kaddu dafa garaaw. Mm-hmm. voilà kaddu yow yow booy wax da ngay bëgg toujours nit yi jëlee la comme un exemple. Mm-hmm. mais aussi jëlee la li ngay waxee njëriñ donc am na yoo xam ne doo ko def am na yoo xam ne image yoo xam ne yow doo ko dégager déjà dalay tënk ah dalay éduquer aussi dalay éduquer mais aussi day bëgg tout tout temps nga pousser nga nga am fu nga viser fu nga viser te foofu nga bëgg a egg maintenant loolu da ngay la question mais comment faire comment faire c'est très important maintenant comment faire boobu moom mooy indi problème euh, problème xale Sénégal yi mhm. parfois sax dem na ba si entrepreneuriat mhm. dem na sax ba si entrepreneuriat gis koo xam ne dalay wax am naa projet mhm. mais depuis dix ans day garder projet bi si moom parce que amul moyen au lieu mu jëm xool na lay def boo bëgg si du am imagination boobu parce que xam nga il n'est pas été formé pour ça quoi. da ngay gis sax xale yi dem ba classe euh, d'examen bac classe de terminale du ñu xam sax ñoom après le bac lan la ñu bëgg a def. loolu chaque année dañuy rencontre problème yooyu noonu. effectivement effectivement booy man man ma di la wax ni man maa ngi si xale yi. Mm. bala ma créé sax sama cabinet mais nekkoon naa si. Mm. Euh, nekkoon naa si dama doon joxe ay cours di jo di ay cour de kii de vacances gratuites mm. sama yaay sax daf ma doo wax yow amu euh, amu benn njëriñ ngay joxe ay cours gratuites quoi xam nga mais man patient la si moom. Ah, patient la si man aussi euh, bëgg-bëgg la si man. parce que man je toujours le monde de l'excellence. Hmm, je so euh, à, à monde-là. pour man euh, il faut ñu former jeunes yi il faut ñu aider leen il faut ñu orienter leen insérer leen également jox leen les mooy possible pour ñu développer aussi euh, suñu réew parce que. Mm -hmm. est c' est c' est, c' est très important. Mm -hmm. fan bu wax oui effectivement euh, boo xoolee tey mooy étudiante yi étudiants yi wala tout le temps dañ may woo di may laajte ah dañuy def université am seen bac am na ñoo xam ne dañuy nekk premier année sans université mais ba tey lu ñu bëgg. pour def le choix c' tout un problème. parce que tu es obligé choix bi nga def ko fan lañ la orienté ak euh, ban branche nga war a suivre tout ça. effectivement mooy mooy mooy problème bu ma wax rek mooy bañ a fréquenter nit yi bañ a fréquenter endroit yoo xam ne vraiment ce sont des endroits propices. Mm-hmm. mais également bañ di informer wu di parce que aujourd'hui euh, le problème de la jeunesse c'est l'information ils n'ont pas d'information alors que tey ñoo am information ñoo ñooy nekk au devant de la scène ñoo ñooy def euh, ay ay activités ay projet ay programme et aussi yoo xam ne day jëriñal euh, askan bi surtout mm-hmm. d'accord am na solo donc euh, pour loolu il faut que ñu jàppale xale yi surtout ñu nekk en classe de terminale comme ça euh, classe seconde sax ñu xam déjà ñoom lu ñu bëgg a def une fois le bac en poche. si Cissé yow nga euh, nekk directeur cabinet Safe Education lan mooy le cabinet Safe Education. alors euh, cabinet Safe Education comme ni nga ko waxee euh, dafa am yoo xam ne man dama ko doon def avant avant même euh, may concrétiser boole ko si Safe Education man ku ma xool éducation moo ma defal te lu ma am lépp loolu éducation la wala donc j'ai été dans de bonnes mains ay Moustapha Badji par exemple mon enseignant moom moo yor depuis ce jusqu'à CM2 euh, d'ailleurs sax damay damay rappeler ça euh, au village dañu doon wax monsieur Badji moo tax may jël première quoi may nekk toujours première de la classe quoi mm. parce que j'étais scotien à lui ok moo ma nekkoon sama papa moo ma doon yóbbu ay vacances moo ma doon jënd ay cahier ay livre ay kii ay euh, yére affaire yooyu quoi tu comprends voilà mais moo ma doon scotien parce que man bu ma nekkoon xale du ma doon ànd ak sama morom yi dèjà donc paa yi laay àndal maire yi xam nga mag yi daal laay àndal quoi. voilà ñu ñu ma ëpp xel en fait. voilà léegi <laughs> sama xarit yi dañu doon wax euh, am na am na lu ñu ma doon wax tapet tapet la ñu ma doon woowee quoi parce que xam nga man surtout temps bi monsieur Badji monsieur Boudiaby Arna Sagnan le feu Arna Sagnan vraiment donc si ñoom laa nekkoon donc ñu ñooñu ñu ñoo moo transformé ok ñoo ma transformé sans le donc euh, à un certain moment euh, damay yor benn xale euh, dañu mel ne danga nga màggetee ndaw ah maanaam sa génération yow da nga da nga ko raw quoi parce que li ngay xalaat la effectivement mais aussi day am lu ñuy wax tamit mooy les les le détecteurs de talent day am ay détecteurs de talent parce que man village laa jàngee euh, ba. ban village. ba Tendouk Tendouk c' est c' est à Tendouk c' est dans le département de Bignona. Boulouf voilà donc Tendouk laa yaroo Tendouk laa defee yëpp bala ma dem Thionkesil après Thionkesil euh, la commune de Thionkesil après si laa ñëwee Dakar maintenant bu ma ñëwee Dakar euh, c' en 2011 bon dama ñëw Dakar bu ma ñëwee Dakar après bon yàlla def ni ma feebar ma feebar deux ans jànguma ok def ma daal def ma activité bon si la euh, beneen idée encore ñëwee mooy bind si laa commencé bind lire bind euh, depuis 2011 donc si laa commencé am yooyu parce que moom mooy permettre ma divertir wu quoi moom mooy permettre aussi euh, beneen cri de boo xam ne dama ko am ma ma critiquer aussi xam nga ma exprimer wu quoi donc boobu noonu moo ma permettre mais mais man en 2011 après 2011 2012 nekkoon naa benn club anglais boo xam ne ñu ñoo ko ñoo ko créé à caractère sociale pour la première fois club d' anglais boo xam ne musul tëj du tëj ah, mooy euh, kii yes we can make bu nekk Derklé mm-hmm. voilà bu nekk Derklé donc foofu la ñu doon euh, tase chaque mercredi ak samedi ñuy former aussi ay jeunes également donc ay jeunes yi aussi di si raconter di si raconter aussi ñu ñëw ku nekk di wax lu muy def si école am xam nga loolu ça motive ah. idée bi foofu la génnee seen éducation. non non bu bi du foofu la jógee mais foofu dama doon joxe euh, mooy terminal ak xale BFM dama ko dama leen doon encadré ok dama leen doon encadré si seen examen ñuy def maintenant après euh, bu ma demee ba léegi léegi ma bëgg a jël lépp lu ma doon def xam nga ma tënk ko si beneen kii quoi léegi si laa créé cabinet bi cabinet bi mu ma tuddee ko Save Education sauvons l'éducation mais ce n'était pas un cabinet c'était juste un tour la quoi en fait xam nga tour la parce que avant Save Education dama créé woon euh, euh, daara anglais ah, daara anglais sama koñ ah, si si kii bi noonu si boulevard bi noonu foofu laay toog ak xale yi xale ji jigéen yi ah, des enfants ma toog ak ñoom di leen jox ay cours d'anglais quoi <laughs> tu tu vois léegi après si la INDSL éducation moom moo englobé yëpp quoi mooy sauvons l'éducation en quelque sorte cabinet bi fu mu toll actuellement. bon cabinet bi euh, après bon fàtte naa la ko souligner après bon euh, j'ai été sélectionné par l'ambassade des États-Unis sur euh, 600 candidats on était seulement 20 jeunes qu'on a choisi comme les jeunes les plus influents après si laa defee euh, sama formation en leadership entrepreneurship diplomatie et aussi euh, en business également donc foofu euh, la première question bi ñu may laaj dañuy lay ne qu'est-ce que ta communauté. Euh, la première question la deuxième question c' était boo jàngee lii après la nga koy def et aussi dans dix ans qu' est ce que euh, qu' est ce que tu après euh, il faut nga am benn projet il faut nga am benn projet wala benn idée pour nga mun a choisir léegi si laa jëlee Safe Education léegi bu mu koy développé théoriquement si sama xel bu mu koy développé théoriquement ak tamit yu mu yu ma jot def après ambassade bi validé ko léegi ñu tuddee ko Safe Education <laughs> léegi mm-hmm. kon Safe Education euh, ça n'existe que de nom wala. Voilà. si si si si si cabinet la euh, cabinet la boo xam ne c'est un cabinet socio euh, socio éducatif mm. ok boo xam ne euh, day def ay affaires yu bëri parce que déjà on est à notre troisième année mm. mais troisième année déjà lu ñu def jéggi na daayoo déjà mm. bon c'est c'est vrai que ce n'est pas ce n'est pas notre notre kii notre objectif parce que ñun bëgg nañu dem au delà de ça mais bu ñu ñëwee bu ñu ñëwee d'abord ci cours yi la ñu commencé parce que bon dañu ñëw millions avec zéro franc. zéro franc qu'est-ce bon euh, comme lu la ko waxee mooy euh, euh, euh, la différence c'est que nous on avait l'information xam nañu fu ñu lu ñu koy defee ak fu ñu ko jëmee donc si lañu commencé jàppale xale yi et par la suite aussi ñu commencé joxe ay bourses ay bourses d'études parce que bon am na ay bourses d'études yoo xam ne dañu nekk en partenariat avec les écoles privées ñoo xam ne dañu leen di insérer mais aussi dañuy jàppale ay xale yoo xam ne dañu nekk en difficulté en difficulté de pay de paiement euh, le le leur année scolaire parce que euh, avant même Covid bi déjà dañuy jël en charge ay xale ok ay ay xale di leen di fay seen école. Mm. mais aussi l'orientation il y l'orientation également ak tamit formation yi ñu doon def ay formation maintenant si la ñu amee idée créer réflexionnisme si biir euh, Save Education mm. si la ñu commencé créer réflexion des jeunes alors réflexion des jeunes projet bu yaatu la. Mhm. projet bu yaatu la non seulement plateforme la pour les jeunes mais également euh, euh, mais également benn programme la programme boo xam ne dafa jël bu tout ce qui est réflexion tout ce qui est xalaat xalaat pour xale yi euh, dañ koy def mooy euh, ay bind ay livres ay concours concours euh, kii concours prix de l'écrivain concours d'entrepreneuriat donc yokk tout ce que les jeunes veulent vraiment ñu dénkee ba mais ñu euh, suñu combat mooy la représentativité des jeunes au niveau des instances décisionnelles te bala boobu il faut ñu commencer def benn euh, former jeunes jeunes yi pour ñu préparer leen suba ñu dem kii euh, au-delà de de réflexion des jeunes après réflexion des jeunes sax amoon na benn émission benn émission à la rajo avec Convergence FM mais après mamaa ko fon donc émission bi tamit amoon na solo parce tamit da invité ay jeunes aussi ñu ñëw exprimer wu euh, wax euh, lu ñuy def ci seen quartier comme yow lu nga ko defee nii donc euh, noonu la et également donc réflexion des jeunes beneen magazine la tamit magasine boo xam ne pour tous les jeunes ah, ñu ngi waaj ñu ngi waaj tamit beneen livre beneen livre écrire en en collectif avec euh, des yoo xam ne vraiment euh, ñoom ay jeunes lañu mais aussi dañu joxe seen xalaat également. Mhm. am na solo vraiment euh, boobu le pàcc yow yaay promoteur également concours inter école Euh, débatton bi ci lan moo ko tënk. alors débatton bi aussi concerné programme la si biir réflexion des jeunes également parce que euh, man foofu laa jaar si débatton bi laa jaar donc lépp lu ma am tamit débatton bi moom moo ko may aussi voilà euh, donc débatton bi laa jaar et aussi ma ne pour pas aussi ma proposer aussi sama sœur yi sama frère yi aussi mettre leen à l'épreuve aussi de la réflexion mais aussi de la recherche. Mm-hmm. parce que débatton bi aussi pour nga bokk il faut nga nekk un élève excellent preuve depuis bu ñu créé débatton bi ba tey euh, nos candidats on a toujours eu 100 pour mhm. euh, ñu mu concerné élèves yi wala étudiants yi débatton bi. alors ñëpp la concerné ñëpp la concerné parce que dafa am senior am junior mais bu ñu koy créé dañu ne d' abord. programme yi nga xam ne ay kaay débat ay euh, reflet kii euh, voix des jeunes ay débatton euh, débatton ñoo xam ne fii lañ doon jaar ay mm-hmm. ELA English Lovers Hours mm-hmm. ay English speaker mm-hmm. ñoom ñëpp dañuy centré wu seen seen seen kii seen sible si universitaire yi ñu ñu ne bon voilà bàyyi lycée yi bàyyi primaire yi ñu ñu ne bon pourquoi pas du ñu commencé d'abord si lycée yi parce que man man dama yaakaar ne lycée yi nga mën a defee formation pour que suba université. Mm-hmm. nga xam lu nga bëgg a def eh, eh, exactement donc ñun ñu commencé si euh, lycée yi maintenant bu ñu commencé si lycée yi bon am na sax ay nit yu ma naan bon c' est impossible c' était impossible voilà ñu bëri loolu lañ ma wax ñu ne si c' était impossible parce que xale yi. parce que ay xale lañ. voilà seen xel voilà seen xel matul. Ah. mais boo leen joxee sujet boo xam ne tolloon ak seen xel aussi ça peut marcher. non tout monde a été surpris. Mm-hmm. Ah, a maanaam euh, bu ñu defee si école yi école Euh, euh, euh, dañuy réticent mhm. ok mais xale yi tamit dañuy réticent tamit parce que xam xamuñu effectivement de quoi il s'agit donc on a eu l'idée de les former d'abord de les former en art oratoire d'abord ok ñu former leen mettre leen à l'épreuve ne leen effectivement am du am trac parce que boo xoolee ñu mën wax devant le micro bëriwuñu ah mag yi ah donc loolu problème la mhm. loolu problème la formation la bu ñu war euh, a surtout mettre accent surtout ci lycée yi xale yi bu ñu nekk ndaw comme ça ñu osé. effectivement effectivement tu sais que comme la ko comme lu mu la ko waxee sa jëlbeen dama la ne am na xale yoo xam ne dañu bëgg mais xamuñu. xamuñu voilà donc il faut aller vers ces enfants là yee leen dénicher le talent il faut il faut ñu dénicher leen talent bon euh, dama benn affaire rek gis ñun bu ñu nekkee à l'ambassade des États-Unis euh, ñun ñëpp bu ñu demee se avec la tête vide la demee ah. mais bu ñu eggee avec les formations qu'on fait mais on retrouve avec des idées vraiment géniales euh, yoo xam ne day dalay aider non seulement yow personnellement mais aussi day aider aussi euh, day am impact ci communauté bi aussi mm-hmm. parce que loolu moom maanaam ñoo ñoo ko def ci ñun mm-hmm. donc ñun tamit dañu war a def tamit euh, ci xale yi tamit mm-hmm. genre idée yooyu moom mooy permettre sax moom mooy permettre xale bi du jël mauvaise mauvaise mauvaise chemin bon xoolee concours inter-école de débatton bi bon la première édition c'était pas du tout facile ok c'était pas du tout facile sur seize euh, sur seize euh, euh, ñoo mujjoon accepté si huit quatre yi ñoo démissionné si quatre yi deux seulement ñoo demoon donc finale la ñu organisé directement parce que xam xamuñu importance bi. Mm-hmm. mais mais la finale quand la finale jour de la finale. ngeen ko organisé pour la première fois. bon c' était c' était à Grand Yoff au centre socioculturel. deux la mais avec Covid bi ñu ñëw ba deux mille deux mille vingt et un mm-hmm. mais ren xale yi ñoom si boppam ñoo ñëw <laughs> ñoo ñëw parce que gis nañu des cas l'importance et vraiment je félicite aussi à mes à mes, nga xam ne. Mhm. Euh, ils ont eu mention bien si euh, bac bi. waa bac bi ñëpp a am BFM bi am na ñoo amul mais on a eu euh, quatre-vingt-dix-huit pour cent comme ça de mhm. vraiment. est-ce que dañ leen di accompagner ci programme concours boobu kan moo leen ci accompagner. oui oui ñun dañu leen di accompagner parce que la formation d'abord en art oratoire. Mm. Euh, euh, c'est c'est forme d'accompagnement mais également dañu leen di jox ay conseils. Mm-hmm. ok parce que voilà si bi. non waxuma accompagnement élèves mais yéen ñi organiser. ah d'accord ok est-ce que euh, am ngeen euh, de l'aide par exemple ministère de l'éducation nationale par exemple yeneen i autorités. bon comme lu la ko waxee je pense que aides ONG yi tout ça là ça dépendra que nous hein, parce que ñun ñu ñoo ko deful ah, ñu ñoo ko deful man mi euh, maa ko deful c'est vrai je n'ai pas écrit euh, qui que ce soit mm-hmm. ok mais euh, damay def seulement avec mes connaissances mes connaissances bon première édition c'était Abla Diop Abla Diop Diop social moom moo ñu financé woon moo financé projet bi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp moo moo ko financé woon et également deuxième bi un un grand cas monsieur Tonton Mathia moom laay félicité lay nuyu de passage aussi moom mooy aussi euh, jël en charge aussi euh, deuxième édition bi ba sans compter les écoles nga xam ne aussi euh, les directeurs d' école de Grand Yoff surtout ñoo xam ne ñoo ñoo ñuy aider aussi ñu concrétiser réaliser Euh, projet bi également. Mm. et sans compter aussi les bonnes volontés ah, am na ay nit yoo xam ne ay collaborateurs lañu samay collaborateurs lañu mm. comme Ami fay ah, moom mooy directrice de projet. Mm. ok am na ñeneen encore ñoo xam ne ñu ngi ci biir. Euh, concours bi euh, Grand Yoff kese la yem wala. bon concours bi pour l'instant Grand Yoff lañ koy yemal eh, lañ koy yemale mais déwén déwén déjà ñu ngi bëgg dem au niveau national. mais aussi day am senior ak junior mooy lycée ak université également. d'accord c'est important parce que niveau national c'est beaucoup plus important comme ça média wu ñu njëgañ ci imprégné wu euh, gis nañu aussi ñun média yi euh, avant amoon na ay débattons ay génie en herbe ay programme yoo xam ne day éveiller xale yi surtout mais léegi euh, surtout télé yi ak rajo yi programme yooyu kenn gisagut ndax jàpp nga ni aussi média yi am nañ ci part de responsabilité mais effectivement effectivement média mooy mooy mooy d'abord premier moyen de la communication ma man di wax ak yow man loolu mooy sama formation loolu laa jàng donc journaliste la voilà journaliste euh, au au quotidien l'exclusif également voilà mais euh, aussi euh, donc média yi am na benn rôle important boo xam ne daf koy jouer par exemple xoolal première édition bi mais première édition bi bu defee finale bi mais après il y a critique témoin las quotidien ak yeneen journal yi ñoo xam ne ñoo ñoo ñëw le quotidien aussi mooy ñoo xam ne ñu ñoo ñëw relayer information bi mais sama koñ jeunes yu fa nekkoon mais ku nekk ñëw na si si man paa yi di maire yi ak paa yi di may woo sama doon dafa daa bëgg a bokk gis nañu si télé bi gis nañu si journal yi dégg nañu si rajo yi mm. ah, donc dañu bëgg aussi suñu doom yi aussi bokk mm. yaa gis donc c'est très important donc impact boobu déjà bu mu am déjà am na benn maire <laughs> am na benn maire bu nekk sama koñ euh, doomam dafa participer woon Tidiane mais mais bu mu gisee doomam si télé wala mu gis ko si kii bi journal bi mais dafa jënd journal bi moom te musul jënd journal <laughs> gis doomam ah, mu kontaan depuis jour boobu la ma jàpp ba tey uh-huh. yaa gis donc loolu c'est très important et aussi les média ñoom euh, ils ont ils doivent jouer leur partition mm-hmm. aussi dans la sensibilisation waaw parce que au Sénégal média yu gis tey mooy ay média yoo xam ne ah, dañuy promouvoir le système LMD c'est-à-dire lutte musique danse te loolu xale bi tamit bu gisee ah nii la parce que ñun Grand Yoff euh, problème boobu la am Grand Yoff pour nga gis nit nga xam ne dafa nekkoon ci Grand Yoff ba tikki ah. du Grand Yoff fekk kese fépp la. voilà voilà donc problème la. Ah. ah donc problème xale bi à du xam dee ne mais man lu may jàngee nii ba jëriñ la am parce que musuma gis ah musuma gis. Mhm. Ah, aw ma référence. Mhm. xam nga aw ma référence. donc loolu effectivement dañu manqué référence loolu du ñu xam fu ñuy jëm. Mhm. parce que euh, boo amee référence yooyu da ngay bëgg a doon comme moom. te bëgg doon comme moom vraiment da ngay trimer da ngay pour nga doon euh, euh, nga a mel comme moom. mais loolu amul. donc loolu boo amulee. loolu bu amulee xale bi day am problème de choix loolu moo tax chaque fois si télé bi lay xool ah ñoom Balla Gaye ñoom euh, Dip Doundou Guiss ah ñoom euh, xam nga ñoom Viviane ñoom. ñëpp mënuñu nekk waykat ñëpp mënuñu nekk lutteur tamit. voilà voilà parce que loolu la gis. Mhm. Ah, loolu la ñuy gis am xaalis taf taf xam nga surtout temps yi euh, mooy lu lu ñu wax les réussites les réussites sociales. réseaux sociaux yi. waaw waaw mooy yooyu. influenceurs influenceurs yi activi voilà si na parti ah voilà voilà gis koo xam ne yéen a bokkoon école mu dugg di def beneen film rek commencé dawal euh, ranks over voilà commencé di daw yow à la da ngay ne est-ce que man lu may jàng sa am na njëriñ <laughs> c'est ça boo koy je pose les bonnes questions donc loolu day influencer xale te xale xale les enfants sont innocents comme li ñu ko waxee parce que loolu la gis loolu la mun a def te bu koy def tamit donc euh, toute euh, euh, proposition daf koy nangu parce que tout tout temps lu sow bi toujours tout dafa am ay secret om et aussi dafa am ay ay kii om donc si si ngay déggee ay promotion canapé ay affaire yooyu problème yooyu fait divers chaque jour fait divers Sénégal léegi fait divers rek la ñu gën a gëm mhm. donc donc médias yi tamit am nañ si part de responsabilité également maanaam est-ce que jotul nga peut mbay la nga lancer appel média yi ñu eh, indiwaat parce que amoon na ñu ko fi daan def mais dañ ko arrêté euh, ñu indiwaat des programmes intelligents yoo xam ne xale yi dinañ ci am njëriñ. oui effectivement man boo gisee tey euh, ma créé Save Education wala réflexion des jeunes wala concours inter école de débatton wala aussi euh, camp de vacances bi c'est ça. parce que man tamit dama teel a seetaan télé donc programme yooyu comme ay ay ay euh, je writer benn film buy tudd euh, je writer euh, dama ko bëggoon trop parce que loolu moom mooy permettre xale bi ah yow nga rêvé. Mm-hmm. Ah, nga parce que bu ñu nekkoon xale yi dañu doon rêvé doon ay Malcolm X ah, ay Martin Luther King ah, ay Cheikh Anta Diop ay mm-hmm. xam nga ay Thomas Sankara xam nga. Mm-hmm. déjà loolu loolu bu lay tënk rek yow déjà ñu ngi lay éduquer sans le savoir donc télé yi média sans détour par exemple beneen émission bu tudd sans détour boobu yàgg na de mais wax ne <laughs> RTS la woon ah <laughs> voilà donc yooyu ah surtout le grand jury ah l' expression de euh, Sadakan xam yooyu ah, ay ay ay émissions yoo xam ne man dama ko doon raté. ak littérature yi voilà ay ma yooyu dama ko raté vraiment ko raté parce que euh, à chaque fois damay gis sama bopp damay ne lii laa bëgg a doon comme kii ah Boubacar Boris Diop maa ngi ma maa ngi rappelé wu en 2002 ah dama demoon euh, dama doon doxante ak sama xarit yi ñu dem Armata ñu gis ko mu présenté. présenté livre am mais lu muy présenté ak lu muy waxee vraiment depuis ce jour là on est on est décidé de devenir des écrivains <laughs> gis donc yooyu dafay am solo ah dafay am solo dafay dafay pousser aussi les jeunes ah, ñu mën a farlu farlu surtout euh, si li ñu bëgg a def te aussi bo mais xoolal tey bi vraiment ah même dañu ne euh, c'est le web 2.0 avec les réseaux sociaux TikTok un mais xale yi amuñu xamuñu euh, xamuñu nuñ koy utiliser. Mm-hmm. xale parce que les réseaux sociaux aussi euh, tu peux te faire de l'argent aussi. Mm-hmm. ay nit si def de l'argent mais euh, ay comme ci ménage humain mais suñu doom yi lan la ñuy lañ fay def. ay groupe whatsapp wax sa xalaat mhm. euh, wax sa xalaat ba nga xam ne sax yow boo waxee kenn du la wax dëgg la kenn du la wax non nii ngay def nii ngay def donc da ngay wax wala ay lépp ay affaire yooyu xam nga day tardé quoi de ngay da ngay da lay da lay tardé donc on n'est pas préparé déjà à faire face à ces nouvelles technologies de l'information et de la communication mhm. loolu moo tax si réflexion des jeunes am nañu programme boo xam ne tamit de sensibiliser xale yi voilà ñëwal euh, si voilà donc euh, web 2.0 pour xale yi chaque fois par exemple euh, si si débatton bi ñu ngi ne les réseaux sociaux sont euh, au un mal nécessaire donc pour ou contre donc xale yi déjà ña xam ne dañu pour ak contre dañu génnee idées yi donc bu ñu génnee idées yi ñoom ñoom déjà ñoom dañuy def bu ñu xam ne ndekete réseaux sociaux yi dañu faire perdre temps. kon ay thèmes yi ngeen di choisir. waaw waaw xale yi pour réflexion. effectivement effectivement donc si tas di ñu xam ne dèjà ñoom ñu ngi perdre temps dèjà donc réseaux sociaux yi baaxul mm-hmm. ñëlee dañ lay jëm a convaincre réseaux sociaux yi baax na mm-hmm. parce que boo boo def boo amee réseaux sociaux mun nga créer sa entreprise mm-hmm. euh, euh, online mun nga travailler avec des compagnies online mu nga def yu bëri daal yaa ngi donc loolu information la c'est ça le permet ñu xam avantage ak inconvénient xam naka lañ koy utiliser effectivement euh, am na benn xale sama beneen élève bu tudd Aïcha Aïcha Aïcha Diallo mais Aïssa depuis bu ñu defee formation boobu dafa jël décision créer entreprise am bu ma créé entreprise am mu naa ma mu naa ma aw ma xaalis mais damay def ko lu ko waxee rek maanaam damay commencé suñu kër déjà créé bon kii la doon dafa ah, terminal terminal la doon def déjà voilà en classe de terminale am na idée créer une entreprise effectivement dëgg donc nee na dafa a mhm. ah, foofu lay commencé di jaay kii am ah, affaire am yi mhm. mais déjà xam nga idée yooyu mhm. yooyu moom mooy permettre xale yi ñu avancer mais aussi xam ni du financement yi kese ñoo leen tënk. Mm-hmm. mais également cette réflexion daf siy joué et les informations mm-hmm. donc ñun suñu suñu suñu siège. Mm-hmm. ñooñu ñu fee ñëw ñu ngi waxtaan ak ñoom si seen projet yi. commencé nañ déjà accompagnement parce que ñun day am phase euh, phase texte phase euh, pratique ak accompagnement et aussi ak suivi bi ak ban période ngeen tàmm di ko def année scolaire. scolaire bi wala bu école technique. bon année scolaire bi lañ ko doon def mais ren ak grève bi xam nga final bi organiser organisé ñu ko ñu ngi xool euh, dans les semaines qui qui qui viennent là. Mm-hmm. si dañu organiser euh, final bi donc mais euh, camp de vacances am na benn camp de vacances bu ñu lancé mooy bu tuddu Dakar kii Sénégal tour. Mm-hmm. maanaam di dem si si gox-goxaan yi. Mm-hmm. voilà si région yi également. voilà donc loolu mooy la phase suivie. day am pas suivi. et aussi ñun li ñu bëgg mooy euh, changer changer cette phase hideuse ok euh, pour que les jeunes puissent savoir en réalité que ñoom tamit mun nañu ko def. déjà am naa xale ñu jël ay initiative comme Awa Diouf Awa Diouf c'était la meilleure euh, la meilleure débatteur de de de la de l'édition de la première édition de 2021 moom déjà xam nga créé na association moom mm-hmm. ah, mi commencé déjà di di di di jàppale jeunes yu nekk si kii am si gogoxaanam yi un jour un sax euh, am na sax benn xarit bu ma mosoon woo bon euh, je le je le salue de passage Boubacar euh, Boubacar Diouf ñoo nekkoon ambassade des États-Unis c'est un promotionnel ambassade des États-Unis un jour dafa ma ne dafa am xale bu jigéen boo xam ne dafa dajaak moom bu muy lekk mu sànni mbuus bi xale bi ñëw ba si kanam moom jël mbuus bi dem dugal ko si kii bi si poubelle bi waaw devant moom nee na loolu daf ko travailler quoi mais après mu set fee mu xam euh, xam xale bi mais xale bi après bu mu ko xamee après mu ma ko awu juf la ma ne ko mais kooku maa ko formé <laughs> donc depuis jour boobu ba ne ko ah donc euh, ñoom déjà lu ñu leen jàngal ñoom ñu ngi koy pratiquer déjà sur sur sur la vie courante donc loolu mooy moo la woon ni euh, résultat yoo xam ne vraiment parfois da ngay am ay retour ah moom mooy pousser à ñun du ñu bëgg a bàyyi ah dañu bëgg toujours euh, continuer également quoi. Mm-hmm, malgré tout mais bon pour continuer aussi il faut chercher des financements am ñu leen jàppale comme ça ngeen bañ a décourager bàyyi abandonner. est-ce que jotul tamit ngeen euh, saisir les autorités ñu jàppale leen. oui effectivement effectivement effectivement euh, boo xoolee boo xoolee comme ni ko waxee ren moom euh, dañuy dañoo tardé dañoo tardé si c'était pas il y avait deux personnes xam ne ñoo ñuy bëggoon financer donc il y avait Sébastien kii Jean-Baptiste il aussi a Tonton Mathieu donc Tonton Mathieu moom bu ko waxee. ay bonne volonté la surtout mais moom moom dafa. dafa di jàppale eh, jeunes yi surtout donc maa ngi koy gis euh, le le le huit le huit mars mooy euh, journée de la femme surtout euh, c'est donc fii laa gisee mu ne beneen association bu tudd de YC yes we can yes you can yes you can dem leen nuyu parce que ñoom samay partenaire lañu ok samay partenaire lañu ñoom Elhadj Elhadj mooy président bi donc ñoo ñoo organisé woon journée boobu et par la ensuite, euh, euh, grâce à, par le biais de Maimouna, Maimouna, euh, kooku tamit sama élève la woon ah voilà sama élève la woon euh, bu muy def terminal donc sama élève la woon maa ko formé woon également et aussi bu mu amee bac première chose bu ma laajtee dafa ma ne yaa fa fàttaliku lu nga doon wax euh, si kii bi si euh, formation bi ma ne ko oui mu ne ma bon ma dama bëgg a nekk yooyu quoi aujourd'hui elle est elle est impliquée totalement impliquée dans les associations avec euh, de YC ok yes you et aujourd'hui elle elle des entreprendre aussi ah des entreprendre donc déjà leader la quoi <laughs> vraiment leader la donc moo boole ak tonton Mathieu et tonton Mathieu la première des choses bu ma lu mu koy def mooy. envoyé ko photo woon ko lu ñu def de concret rek moo accepté automatiquement. d'accord euh, ñu ñëw ci euh, camp de vacances yi euh, c'est vrai que nous sommes en période de vacances ngeen tuddee ko Sénégal Tour mm-hmm. lan mooy Sénégal Tour. alors euh, Sénégal Tour boo gisee bu njëkk ba c'était c'était grave d'abord si camp de vacances bi muy première édition c'était grave d'abord mais lu nga war a xam mooy camp de vacances yi bokkul ak camp de vacances yi nga xam yow li nga xam yu 100% épanouissement mais ñun c'est 100% formation te formation yi du bokk encore ak yeneen formation yi yeneen formation yoo xam ne. ah mais ko jaxase divertissement parce que aussi vacances la ne xale il faut que ñu divertir ou changer idée. oui oui oui bon divertissement bi si biir acti euh, euh, la nekk parce que si acteurs manam maanaam on s'amuse on apprend en s'amusant. d'accord waaw c'est c'est c'est surtout loolu moo gën a am euh, loolu moo gën a am euh, solo. Mm-hmm. donc formation tamit bokkul ak yeneen formation yi nga xam mooy formation deux heures de temps ah quatre heures de temps nga bàyyi xale bi mu dem non ñun ay semaines la ay trois semaines trois semaines lañ ko defoon l'année passée. Mm-hmm. et aussi bon dañu choisir ay activités ay domaines comme informatique comment créer des applications leadership entrepreneurship aussi et également. également dañuy def environnement citoyenneté civisme également dañ koy def aussi donc euh, boo xoolee boo xoolee suñu formation bokkul ak yeneen formation ba ñun suñu formation c'est cent pour cent pratique cent pour cent pratique te ñuy former tamit c'est ñoo xam ne bon ce sont mes promotionnaires ñoo nekkoon ambassade des États-Unis vraiment ñoom dem nañu boo États-Unis jàng euh, euh, entrepreneuriat leadership euh, tout tout ça là avec des programmes comme Yali Mandela Fellowship ah Yali Young African Leader Initiative nga xam ne chaque année dañuy dañuy sélectionner les meilleurs leaders ok di di de l'Afrique ñu yóbbu leen école CESAC def la formation après par la Euh, am na benn programme boo xam ne man Mandela Fellowship boobu da ngay dem États-Unis def six semaines de formation dans les grandes universités surtout nga def formation avec une bourse boo xam ne c'est le gouvernement américain ñun ñoo la koy jox donc ñooñu foofu la ñuy demoon ñoom tamit euh, dañuy nekk euh, di def comme man ñoo ma a def parce que ñooñu moo ñu créé voix des jeunes ah Sobel Sobel Ngom moom moo créé voix des jeunes ñoom Boubacar Diop ah ñoom c'est des vraiment nga xam ne même lu ñu def même ministre yi sax duñu ko def <laughs> parce que c'est très important aussi ñu souligner cas mais aussi dañuy def le tour du monde également ok di jàppale jeunes yi donc si programme yooyu la ñuy denk parce que former euh, ko waaye xam-xam xamale yaa ngi donc dañu lay former après ñu bàyyi la yow tamit nga ñëw former aussi ñu tamit si fan boobu la ñuy la ñu nekk donc ñu ñooy formateurs yi donc ñooñu bokkuñu ak Cissé mm-hmm. nga xam ne Cissé peut-être moom tamit dafa bëgg ñu former ko mm-hmm. ñoom dañuy am déjà bagage yoo xam ne bagage intellectuel yoo xam ne xam nañu li ñu former parce que ils sont formés pour ça xam nañu tamit ba message véhiculé parce que ils ont fait ça yaa ngi fi donc loo xam ne c'est pratique mu euh, Inde Marie Diéguène par exemple elle euh, elle est tout dans la vie elle a fait tout mm-hmm. écrivain la euh, ingénieur la de civil elle a tout fait tout et aujourd'hui on a vu vraiment des résultats de ce qu'elle fait vraiment donc ñun ñoo ñëw ah ñoom ñoom euh, kii euh, comment dire encore euh, soxna Mbossé soxna Mbossé que mooy sama collaborateur si benn projet bokkul ak projet bi ah Place donc ñu ngi waaj aussi en place une entreprise nga xam ne bon day day jàppale aussi ICG si liggéey bu muy def mais ñun dañuy dem au delà de ça mm. incha allah Mamadou Ndour euh, man ak moom euh, ñoo bokkoon cohorte ñoo bokkoon puissance euh, promotionnelle la. Mhm. donc ñooñu ñooy def formation bi donc ñooñu déjà am nañu bagage. bokkul ak koo xam ne dafa bëgg a dafa bëgg a doon. Mhm. muy former mhm. mais koo xam ne doon na ko ba pare mu ñëw di former. donc ñun dañu choisir vraiment les meilleurs profils. pour ñu mën a former xale yooyu kàlla. yan xale ngeen di tàmm di yóbbu camp de vacances yan xale. bon camp de vacances. Euh, lu ko tax a créer lu lu ko tax ñu créer ko mooy ñoo xale ñoo xam ne dañu def débatton parce que xale bu nekkee débattant avec les sujets comme ni mu ko waxee ay réseaux sociaux euh, ay euh, l'immigration clandestine et également l'environnement euh, l'environnement kon ñi jaar débattant ngeen yóbbu camp de waaw mooy mais yooyu non non non non camp bi d'abord ñu jaar camp de ñoom ñoo tax ñu créé ko d'abord mm. ok ñu créé ko maintenant bu ñu ko créé boo pare donc ñu jaar ñu def formation parce que aussi débattant bi am na mais du ñu def defatoo. Hmm. ci avis voilà donc ñoom ñëpp la jël ñu def leen cas de vocal mais ñeneen encore ñu ñëw encore dañu leen di jël aussi. Donc, euh, tout le monde est libre ok de de de de s'inscrire ok donc amul cible donc mais la plupart moo ñu def formation bi ñoom ñooy moomu carte vacance bi. Mm-hmm. d'ailleurs ñoom ñoom ñoom ñoo woo chaque jour di may laaj carte vacance bi kañ lay commencé kañ lay commencé. fan la carte vacance fan lay nekk. bon carte vacance bi cette année euh, bon dañ koy def Sénégal tout ah, du doon euh, grave d'abord. bu njëkk ba c'était au centre socioculturel euh, de Grand Yoff avec euh, monsieur Sambita Sambita moom mooy directeur euh, mhm. centre social bu Grand Yoff ah foofu la ñu am tamit bibliothèque mhm. nga demaa bibliothèque foofu lañ ko créé aussi donc moo ñu jàppale mooy suñu partenaire aussi également donc moom la ñu travaille depuis boobu mais cette année dañ koy def dans dans d'autres quartiers dans d'autres localités loolu moo ko Sénégal Tour mhm. donc am na déjà ay ambassadeurs yu ñu implanté au niveau des des des localités par exemple Rufisque il y a Habib Habib euh, Niang euh, Habib Niang moo moo ñu représenté moom déjà am na cinquante participants déjà <laughs> yëmbal euh, am na sama sama sama benn xarit tamit bu fa nekk tamit moom mooy ambassadeur bi parcelle Euh, yes yu can de YC ñoo ñooy gérer parcelle. Mm-hmm. Grand Yoff am na samay leader ñoo xam ne ñoo ñoo koy gérer. Mm-hmm. mais Grand Yoff seulement sax sax am nañu trois cent demandeurs déjà donc trois cent participants. donc ngeen mën a gérer loolu lépp. voilà donc c'est ça le problème te aussi munoo jël ñii nga bàyyi ñii na euh, il faut maintenant euh, être très réfléchi mooy la la ñuy def ba ñëpp jot si loolu moo tax ñu bëgg ko décoloniser au niveau des écoles maintenant comme ça. ñu nekk. école si Grand Yoff si Grand Yoff déjà ah. waaw si Grand donc ku nekk euh, parti bu nga nekk yow tu seras comme l'ambassadeur. mais boo waxee Sénégal Tour man j'ai l'impression que da ngeen def de région en région. oui dañuy dem Ziguinchor dañuy dem Ngeko Ngeko voilà Mbour aussi ak Thiès également. Mhm. donc euh, loolu la pour l'instant mais képp ku bëgg euh, bokk si cas de vacance bi bu dee bëgg nga ñu indi ko sa gox par exemple il suffit juste nga def ñu signe et tu tu seras l'ambassadeur euh, dans votre commune. Mhm. léegi xale yi yan activité ngeen leen di defaral ci période vacances yi. bon période vacances bi c'est des formations 100 pour 100 formation. ah oui à leadership comment créer euh, un business plan euh, comment parler en public comment défendre pour maanaam les investisseurs ñu ñëw investir sa projet na nga leen di loolu la wax picc mi en picc mi dis mois en en anglais mhm. et aussi. civisme ak citoyenneté également am na benn fànn mooy environnement surtout et donc day am euh, kii aussi il le grand prix de l'entrepreneuriat man euh, informatique aussi créer ay robots euh, des applications comment créer des applications des robots maintenant day am le grand prix de l'entrepreneuriat mooy projet bu gën a kii moom projet boobu la ñu xool pour ñu financer ko également. Mm-hmm. kañ la camp bi commencé. bon camp bi pour l'instant commencé gul parce que bon ñu ngi finale bi donc finale bi bu amee wala dañuy commencer avant finale bi tamit am parce que c'est la deuxième édition mhm. du camp de vacances mais aussi deuxième édition finale bi finale bi comme euh, réussir nañu ko léegi finale bi rek moo des donc camp de bi mën nañu ko commencer aussi alterner ñaari pour ñu tëj euh, saison bi comme booy yi ñu am na solo vraiment Moustapha Cissé activités yi lépp li ngeen di def ay programme yoo xam ne c'est très bien réfléchi ngeen fas yéene ko jagleel ndaw ñi mais du ñàkk ay jafe-jafe yi ngeen di jànkonteel ci parce que li ngeen def vous le faites de façon gratuite volontairement parce que kenn du leen ci fay wala. oui effectivement euh, am na euh, énorme difficulté mais xam nga man damay ne lu gën a important d'abord mooy idée bu am. idée bu nga am mooy fa ngay jëm fa nga bëgg a jëm mm-hmm. mooy idée bu mooy lu gën a important si man maintenant lu si des loolu euh, da ngay jëm a xool euh, sa entourage bi ñan ñoo ko mën a jàppale bon man ñàkkuma ay personne ñàkkuma ay nit tamit mm-hmm. waaw vraiment man euh, foofu mais yàlla daf dafa ma may ñëpp mu bëgg mm-hmm. euh, lépp lu ma si yëngu rek gars yi ñëw jàpp si mais c'est que man dama am ay principe dama am ay règles mm-hmm. donc uti ma si euh, ay ay ay fonds ay xaalis ay affaires yooyu parfois damay jël sama poste koy def waaw di def di koy def waaw IERA par exemple daaw daaw j'ai de soixante mille mm-hmm. pour euh, final bi mun a am quoi même si am naa am naa parrain parce que parrain bi dam ko ne muy Abla Diop Diop social dam ko ne yow defal defal lii. Mhm. waaw defal lii leneen nii mën naa ko def. Mhm. Euh, te loolu laay doxee. Mhm. mais tout ça là c'est que dañu bëgg vraiment suba euh, programme bi euh, ñu yóbbu ko au international. comprendre donc loo xam ne du loo xam ne day judd rek dee non alakul yàlla moom du musa dee <laughs> kooku moom du musa dee tant que egguñu fu ñu jëm kooku moom du dee. mais ñu may conseillé am na ñu may conseillé yi mais xam naa déwén. a ngi grand yow. waaw voilà euh, yoo xam ne vraiment boo la jàppale kooku dëgg la kooku moom mm-hmm. nga comme ni ma la ko waxee rek mooy euh, am na beneen élément basse Bassirou Sam ah Bassirou Sam Sir moom euh, dafay. waaw waaw waaw mooy deuxième cabinet bi bu maire bi moom tamit euh, dafay dafay liggéey bu am solo ok ak tamit yeneen ah, am na ay ñoom kalifa Babou Imam ah aussi ça ñoom euh, ñoom aussi xam nga ñoom Sini Sini sax moo tax boo projet bi sax mu dox parce que moom moo woon Abdoulaye Diop donc ñooñu mhm. du si ñàkk am na ñoo xam ne vraiment ñoom dañ si taxaw dañ si ja di may jàppale. Mhm. mais euh, comme lu comme ko waxee rek parfois moom ay réticent moom ay yéexal dem envers les autorités également. Mm-hmm. mais y a de ces choses tamit euh, comme concours inter école bi réflexion des jeunes yoo xam ne mën ngeen ko def au niveau national euh, maintenant pour que sa soit au niveau national il faut que autorités yi duggal ci seen loxo. parce que c'est pour la bonne cause surtout bu concerné ndaw ñi foog ñu dugal seen loxo. effectivement comme lu ko waxee Save Education mu ngi juddoo à l'ambassade des information bi euh, ambassade bi dafa ñuy wax bépp activité boo la mënta def def lañu si ñu ne ñëw appui. waaw waaw mooy euh, la phase accompagnement parce que dama la wax il y phase formation après phase accompagnement et suivi. vous comprenez donc ñoom toujours dañuy laajte la nga def toujours pour ñu mën la financer parce que l' ambassade vraiment c' est des ñoom ils sont dans le concret quoi. Mm-hmm. vous comprenez. Mm-hmm. et par la suite aussi euh, am na ay nit yoo xam ne toujours dañ mi koy wax pour ñu jàppale ma ay organisation ay structure ay affaires surtout mais à chaque fois lu may gis saa yu ma publier on a déjà un partenaire euh, au niveau international mooy euh, l'université la Luiss de de de kii de d'Italie ñoom déjà ñoom jël nañu au niveau national ma maanaam bu ñuy def au niveau national ñoom ñoo koy ñoo ñoo koy financer vous comprenez donc là euh, ñuy xool fi ba dëggoon na la ñu mën a liggéey ak ñoom pour ñu def ko au niveau euh, national maintenant au niveau local maintenant man damaa am samay nit damay am samay nit voilà voilà damay am samay nit man tamit du ku nekk laa adressé ah <laughs> kooku il faut que ça voilà ça soit clair quoi parce que dama am ay principe ah dama am ay principe bëgguma tamit euh, suba voilà politique dugg si ko voilà tu comprends te aussi nit yi aussi lu ñu xalaatee. voilà ñu koy def laay def euh, récupération. voilà récupération wala wala sax wala sax même bu ñu def les récupération politique mais day am ay wax déjà yoo xam ne nit yi dañ koy wax déjà si suuf te yow doo ko yëg donc man sama projet vraiment c'est un projet clean projet boo xam ne dafa am ambition au niveau international donc kenn mu ko yàkkal la ah, kenn mu ko yàkkal voilà donc c'est pour cela à chaque fois ma xool lu ma mën a def ma def ko. lu ma mënta def du ma ko def mais tamit su ma mënta defee def si demee xool euh, ay nit yoo xam ne vraiment mënuñu ma jàppale. ñu xool ak lu ñuy def pour ñu jàppale mooy daal. d'accord Moustapha Cissé ñu bàyyi la nga joxe sa dernier euh, baa ngi jot. voilà euh, di jaajëfal rek di auditeurs yi ak yow tamit nga xam ne yaa ma permettre cette opportunité surtout ñu exprimer si et également di jaajëfal ñëpp ñoo xam ne vraiment parce que bu ma lancé message bi déjà sur WhatsApp nit yi ngi ne. ban heure la ban heure la ban heure la déjà xam nga am naa beneen euh, euh, beneen beneen partenaire bu nekkoon niveau international moom tamit dafa bëgg a déglu tamit euh, kii déglu tamit émission bi donc c'est très important aussi ma nuyu leen et aussi di nuyu ñëpp di lay waa rek affaire yi ñun seen éducation ñu ngi nii réflexion des jeunes mi ngi nii inter concours inter école de débat aussi mi ngi nii camp de baa ngi nii donc képp ku bëgg mu travaillant ensemble donc c'est pour tout le monde amul euh, xaj ak seen am nañu voilà voilà sa doom fu ma mënta nekk lu ma mënta def euh, boo bëggee mu bokk rek euh, mun na bokk également mhm. donc je vous remercie d'accord Moustapha Cissé Rewmi FM aussi ñu nit ñu la sant di la gërëm ci liggéey bu rafet bi nga xam ne yaa ngi koy def programme bi am na solo yaa di fondateur directeur cabinet Save Education yaa jiite concours inter école débattant Euh, jiite idem euh, réflexion des jeunes nekk itam promoteur de camp de vacances Sénégal Tour di ay programme yoo xam ne vraiment am na solo dina amal njëriñ ndaw ñi ci année scolaire bi ba ci biir vacances bi ñu lay sant di la gërëm ci sa teewaay Bachir mu nekkoon ci technique bi di gërëm auditeurs yi nga xam ne ñoo doon bàyyi xel di leen jox dig daje crédit bi di ñëw jàmm ak jàmm